Assalamualaikum mbokk yi demat mbekté di ànd ak yéen sen émission tam-tam niñ koy défé nak aljuma june dañu daldi dugg ci bép këru diiné daal di fa nuyo nak nuyo bu gëna sel bi di ñaanal kilifa diiné yi kilifa aada yi ñom tamit ñi ñaanal ñaanal Sénégal euh, jàmm sax fi law fi euh, te jëm kanam di ñaanalat encore une fois way dalu yi na ñi nga xamné ñom ñoom ñoo ñàkk seen bakkan falé ci Daaka ba na yalla woyofal suuf ci sen kaw té mu gëj fi lol lol lol di euh, gërëmaat encore encore une ñëpp ñoo xam ne dañuy am mbégte di ànd ak ñun ci suñu émission tam-tam tey nag ma fas yéene ci ànd ak sama invité yi ku mel ni euh, Ceki Blaise nekk euh, rappeur euh, tey nag bu ci kanamee moom mooy nekk invité Del Malick ci artiste invité du jour Ceki Blaise maa ngi lay maa lay fay di di fay téléspectateurs yi. donc di leen remercier aussi ci invitation bi remercier Del Malick et di nuyu ñëpp ñu nekk ci plateau bi et euh, voilà bu ci kanamee ñu xuus ci waxtaan bi ñu gën a waxtaan si mais mu ngi noonu <laughs> voilà bu ci kanamee dinañ xuus ak moom ki nekk ci wetam nag may amat mbégte ànd ak moom ndaxte nak dalon nañ ko fi euh, ay weer ci gannaaw. Hmm. docteur euh, Mor n'est que directeur de la santé euh, santé nutrition scolaire fallait ci ministère de l'éducation nationale docteur Manglé Dalal. lay dalal. Hmm, jërëjëf Yolande di la nuyu di nuyu Ben di nuyu Khadija ak Ceci. di len gërëm si li ngeen ma invité waat encore tay comme ni nga di bokk tiis bi ñu am si Dàkk Médina Gounass di jaale xalif bi ak mbooloo mu sénégalais di ñaan mu gëj fi yow aussi di la ñaanal un bon vendredi saint parce que koor gaa ngi jeex dëgg la metti woon na lool waaw donc di ñaan rek ngeen jeexal ko si jàmm ak salaam waaw ñu bokk àjjuma bi aussi ak àjjuma bi ah, <laughs> xam naa ne waxtaan gi nag tey moom dana dana jax torop hmm. ndaxte dafa amoon lu ñu fi waxante woon bu ci kanamee dinañ ci xuus hmm. du noonu Khady maa ngi lay dalal maa ngi lay nuyu Yolande hmm. di nuyu ñu nekk ci plateau bi ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan gis nga def lay nax nag dafa am lu mu la promettoon am lu mu la digoon

ànd ak ñun euh, ci émission tam-tam mu del Mang, ngi lay waaw euh, Yolande Mang, ngi comme euh, comme d'habitude hein di téw ak yow ci plateau bi feggoog fi également ak invité yi ak khadi di nuyu également Big comme ni ko et puis di am partager plateau bi pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. voilà tout à l'heure ak Del Malik, ci artiste invité du jour dañuy dal di ne kiss daw dem régie ñëwaat ci ko plateau sànq maa ko don wax docteur Mor Diaw nañ ko fi dalal. ànd tay hmm. ñu éducation éducation. Euh, fan yi weesu nag daanaka ñaari fan ci gannaaw ki nga xam ne moo di ministre de la santé ànd ak euh, collègue am di ministre de l'éducation nationale dañu daal di yaatal li nga xam ne moo di couverture maladie universelle daal di ko jagleen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci lekkool yi ndaxte nag kenn umpalewu ne euh, naam nag xale faw mu jàng waaye nag faw mu ànd ak wérgu yaram looloo tax nag ñu daal di xuus ànd ak ñoom daal di leen ñoom tamit ibbil li nga xam ne moo di couverture maladie universelle ci ne fa la ñu nekk la ñuy joxe ñoom nag néew na par rapport ak ñeneen ñi mag ñi li ñuy joxe daanaka pour jàppale waajur yi la woon euh, foog naa dañuy daal di dem xooli ji élément bi Xadi ñëwaat ci président la République président Macky Sall bi mu nekkee candidat dafa diggee woon dara ne dana indi kiiraay ci mbirum wérgu yaram pour bépp doomu Sénégal. Euh, ministère de la santé ak agence couverture maladie universelle liggéey ci liggéey bu rafet waaye ñu gis ne am na beneen jéego bu ñu ci war a def jéego boobu mooy mën a laal yi nga xam ne ah ñooy tout tànku Sénégal mooy xale yi nga xam ne ñu ngi jàng te ñu seen lim soriwul ñetti million suñ leen laalee kon laal nañu ay sénégalais yu bari laal nañu ay xale yoo xam ne yi ëllëg ñoom ñooy mag. te loolu daf leen di tàggat ci mbirum wér yaram gis nañ ne tamit ne dana yokk tanu njàng mi maanaam dana améliorer qualité njàng mi ndaxte xale boo xam ne bii da nga feebar nga toog ay fan jàng siwo woo wala nga feebar nekk classe mënoo suivre dana am ay ay ndokk yu muy indi ci sa njàng. loolu moo tax ñuy rafetlu initiative bi nga xam ne suñu ñaari département muy département éducation nationale ak département santé. ànd nañ si bokk si pour mën fexé ba nga xamné xalé yi nga xam dañuy jàng l'école ak ay lycée mën am ñom itam couverture su féké né dañoo mom lañuy ñuy CMU élève CMU élève nak xalé bu nek da ngay fay ñaari témèr kessé at bu nek soko ko ah dina di nga fexé ba nga xam su lu la jot daal di nga mën dem faju ji poste de santé centre de santé wala hôpital nga xamné do fay consultation té so paree itam mën am ay garab yo xamné ne la ko jox di gërëmaat bu baax ñu euh, naataango di Pape Kolingom moom nga xam ne euh, moom moo tax ñu mën a taataan yi lee xibaar euh, fii ci seen émission tam-tam je pense que yi nekk na initiative bu am solo ndaxte nag xale daanaka bu dee am na wér du yaram wala bu feebaree mu am ñoo xam ne mën nañ ko faj te wéyjur gi du ci sonn wala professeur bi corps professoral bi du ci sonn biir école jang bi gëna wër ci biir école yi Yolande c'est vrai que ministre ñaar yépp rappelé nañ ko d'ailleurs tout à fait euh, nit ki mom muy élève <laughs> muy yow mi di def émission nit mom bu oh. mom def dara mm-hmm. voilà donc wér gi yaram dafa nek lu am solo té heureusement que ñom ñi comprendre nañ ko xam nañ ko mu nek ñaari ministère yo xamanteni euh, c'est vrai que yag nañ di lekkelo di liggéey ndax tay sax docteur diow mi nga xamanteni mo fi tok firndel nako mu ngi yor lepp lu jëm ci contrôle médical scolaire té ab docteur la nek ministère de l'éducation nationale kon ne lepp mu nek lo xamanteni franchement luñuy euh, luñuy applaudir la mm-hmm. ah, mm-hmm. parce que xalé yi soxla won nañ ko mm-hmm. ah, condition xalé yi metti ci yaram gi te yaram faju dafa metti Sénégal dafa tout à fait surtout que rek par donc na franchement alors que ñeneen 3500 joxe eh, exactement c'est vrai que lawagul des na xam naa dinañ ci waxtaan ak docteur ci kanam parce que nee nañ lu toll presque ci ñetti million euh, la ñu jëlagum en charge euh, école yi bari nañ Sénégal nekkul rek école publique. Hmm. daara yi ci la ñu war a bokk école privée yi ci la ñu war a bokk. Hmm. loolu yëpp xam naa dinañ ci ñëw parce que yaakaar naa ne xëy na eggaguñu ci yenn ci yenn secteur yi. Hmm. Euh, ci loolu docteur c'est vrai que ñëwoon nga fi am loo digoon <laughs> Yolande moom nee dina ko waxal boppam. mais man dama bëgg xam rek tey. yi nga xamante ni instauré nañu ko amal école Sénégal euh, euh, lan lan lan innovation wala dina dara a dal ci ci ci ak ci élèves yi. Euh, Khadija ko ak initiative ba nga mhm. c'est la première fois ñuy jël béné cible spécifique ba nga ay ñu ne nañ xool lu ñuy améliorer seen couverture sanitaire loolu ay gëstu lañ ci defoon lu yàgg bële passé bi ñu fi ñëwee woon waxoon nañu ñu ngi si gëstu di xalaat ak euh, agence couverture maladie universelle bu monsieur Cheikh Mbengue jiite ñu invité woon si euh, ñëpp ñu nekk si autour de l'école muy parents d'élèves yi muy enseignants yi muy inspecteurs yi muy médecins yi ñun leen ni lan moo gën pour euh, améliorer wér-gu-yaramu xale yi parce que xalé bu am wergu yaram comme ni ko daan waxee jàngam day yomb day mm-hmm. améliorer performance scolaire am day tax mu yagg ci école bi biñ ko euh après def ben comité bu ndaw pour gëstu nu ñu mettre en place liñ tuddé un cadre législatif mm-hmm. réglementaire moy ben arrêté interministériel ba nga xamanteni monsieur le ministre euh, de l'éducation nationale le ministre de la santé et de l'action sociale dañ ko doon signé mm-hmm ñu liggéey ak ñoom suñu euh, magistrat yi liggéey si ba finalement le 18 janvier lañ signé arrêté ministériel ba nga xamante ni mooy encadrer la couverture maladie universelle des élèves bi ñu ko defee euh, li desoon mooy xool nan la ñuy defee mise en œuvre bi mooy nan lañ koy toggee ci région bu nekk hmm. fexe ba euh, mutuelle yi existé yi hmm. ñu xool nu ñu ci duggee ñun ñun aussi ñoo xamante ne ñun ñooy jàngalekat yi ñu xool ban place lañ ci am si conseil d' administration yi si commité du suivi yi loolu moo tax euh, bi ñu ko defee nag léegi li des mooy invité woon ñooñu ñëpp si lancement ba nga xamante ni mardi passé lañ ko commencé muy ñaari fan. ñu mm-hmm. ñu invité waat ñi njëkk ñu invité woon daaw toog ñoom ñu leen léegi nañuy xaar gouverneur yi def arrêté ba nga xamante ni mooy mettre en place comité régionaux yi. Mm-hmm. loolu base de départ ba bu fekkee def nañ ko. Légui, euh, cadre yi nek autour de cette CMU les agent CMU bi muy inspecteur d'académie, académie médecin chef de région bi présidents président euh, des assureurs de la région xol nu ñuy un un plan de mise en œuvre et là, la avons xam ne solo au niveau central l'éducation éducation nationale ak agence CMU nu ñuy mettre en place un paquet d'activités pour soutenir surtout la communication ba nga xamante ni dañ sori lool ba mais bëgg nañ ko le lancement définitif euh, mu gën a law Sénégal débuté durant l'année scolaire 2017 2018 inch'allah allah loolu daal mooy suñu bëbët tey yaakaar nañ ni dañ fa egg <laughs> waaw euh, Yolande xam nga euh, ni ko waxee neen dañ fa fekk ay mutuelle te ku wax mutuelle sa xel dafay dem ci li nga xam te ne moom lañ lay proposé <laughs> <laughs> soins yi lay proposé ñu ne par exemple mutuelle bi dina jël en charge lii ak lii ak lii mais CMU élève boobu noonu yan soins lay jël en charge waaw déjà comme ni ko Yolande waxee woon 1000 francs kese ngay pour une en charge à bi alors que CMU normal 3500 euh, ngay joxe ñu en charge donc bu ñu 1000 francs ngay joxe dañoo dem ba gëstu si li un paquet minimum de base. mooy la nga xamante ni man la ko proposé pour que man ko jariñoo muy sa assurance maladie. Mm-hmm. paquet minimum de base c'est mi ngi toll si fait bu ñu poste de santé Sénégal bi

garab ya nga xamante am si biir euh, centre de santé bi dañ la koy jox. bu la garab ba si la am en charge à. 50 pour cent et boo fay 1000 francs boobu service yi wax 80 pour cent lañ en charge donc 20 seulement fay. Mm-hmm. ni euh, si suñu gis-gis waajur bu nekk war na

li ñu leen nar par rapport ak 1000 francs yi ñu leen yi leen wax ne moom la ñu annuellement. Mm-hmm. est-ce que charge yooyu euh, couverture maladie moo koy jël en charge wala seen famille ba tey dañu am lu ñu ci participer. waaw euh, euh, couver arrêté bi ministre yi éducation ak ministre de l'éducation nationale ak ministre de la santé arrêté bi c'est c'est inclusif mooy public bi ci la bokk privé bi la bokk. d'accord et booy liggéey ci da ngay commencer ministère de l'éducation a commencé mais nous sommes sommes que que ministère de l'enseignement et la formation professionnelle de si war a bokk ñu parce que nous aussi dañuy gérer euh, moments où enseignement et formation professionnelle au niveau de nos inspections. Euh, ministère de l'enseignement supérieur ministère de la famille ministère de l'enseignement supérieur. le lieu nous ngi si de la CMI nous sommes ñu koy de ah. ñu ngi incha allah bëgg nañu defaat beneen atelier bu mel nii def passé pour que euh, dajale euh, ñi am xam-xam ci daara yëpp. ak mhm. instance yi nekk au niveau du ministère de l' nationale parce que ñu ñooy toppatoo mbirum daara xool aussi nu ñu koy lawle ci daara yi. incha fii koor gi. yaakaar nañu loolu aussi dinañ ko togg bu ñoree incha allah dinañ ko yàkkale ba mu gën a lawal effectivement euh, si xale yi nga xamante ni Sénégal yëpp moo ko mën a jëriñoo. Cheikh Iblaye c'est vrai que euh, France nga nekk waaye teewul nga nekk sénégalais. Ah, te je pense que euh, initiative bi war nga cee mën a am loo ci wax. effectivement waaw dans France l'a nekk mais euh, sama intérêt au Sénégal la nekk. Mhm. sama ça sama famille fi lay nekk suñu avenir fi la nekk. tout à fait suñu sama sama doom bëgg naa mu màggee fii. Mhm. Euh, donc beaucoup naa mu ñu ñu donc lépp li avancement Sénégal ñu nous mhm. am suñu cadeau et puis xalaat ko ndax en tant qu'artiste aussi loolu la ñuy xeex. noo euh, couverture maladie universelle pour élèves je pense que c'est euh, c'est une très belle surprise donc euh, wax dëgg yàlla ko ça me fait énormément plaisir parce que on s'inquiète beaucoup ñun bu ñu nekkee je pense que ñun ñuy nekk Nous sax ñooy gën a ñi nekk Sénégal si mm. luy xew fii suñu famille la moo leen dal affaire yooyu ndax on a on a plus ou moins la chance nous ñu am genre couverture yooyu donc euh, bu ñu déggee suñu famille wala suñu ay ay doom la rax wala mën nañu am possibilité possibilité boobu mm-hmm. c'est euh, c'est vraiment une grande fierté et rassurant mm. mais man ma seule question moi est-ce que euh, communication bi mu daw comme parce qu'on a un problème au Sénégal moy la communication. Mm-hmm. day bëri na luy xew peut-être mais ni duñ ko mm-hmm. les gens ne regardent pas la télé parce qu'ils ont pas le temps ñoo ngi daw outil de dépense euh, du lire journal parce que foog nga jënd ko tal ñu jënd café wala lén lu ñuy mm-hmm. donc est-ce que vous avez pensé à sensibiliser même si quartier Euh, chef de quartier nous ñu def ay réunion wala Ben genre caravane yi xamni ni père de famille yi nga xamné ñu ngi ci talé bi di mm. jaay borom mbagg yi ak affaire yi nga xamné dañuy liggé mm. ni am information bo parce que c'est c'est très très important faut que c'est euh, c'est-à-dire que pour man man je suis toujours oyofal lu bari ci waajur bi nga xamné do doom je suis toujours en fait actuellement dama dama je suis vraiment content en fait avec eux et puis que pour initiative bi que nga mëna fay 1000 francs dom mu mëna am ben aide c'est même pas même que c'est un premier pas, mm-hmm. mais c'est très très important pour que mm-hmm. Mm-hmm. la banlieue, famille, mën Est-ce que vous avez prévu une campagne pour que la population et nous ñu mën ko ñu adhérer docteur. Euh, merci je pense que euh, l'un des am solo li ñu si euh, jotaay bi un téléphone def nañ un plan de communication ba maintenir mon accompagné euh, mise en œuvre programme xamne mom lañ ko defal mhm. euh, plan communication bobo euh, commencé déjà. nous mu commencé autorité yi gouverneur yi am arrêté bi lawal ko au niveau des structures les plus déconcentrées de l'État si préfecture si sous préfecture nous te ñooñu am nañ ay courriel yi nga xamantene mom CRD. cere CDD ak comité locaux de euh, yooyu euh, ay jotaay la nga xamante ni. Hmm. dañ fa mën a waxtaanee mbir mi. yeneen ya nga xamante ni euh, ñu ngi si si plan de communication boobu am nañu weer bi yëpp ak vacance yi pour mën ko tëral te li si ëpp li ñuy def mooy dañu déjà ñun dañuy gëstu ñun waa éducation defa benn module de formation ba nga xamante ni day wax mbirum semi élèves. Hmm. buñ ko defee dañuy tàggat ay pool de formateurs ci région au Sénégal bi pour ñu xam luy seemi élèves bi jox module bi ñooñu tàggat ay coordonnateurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci école établissement ya nga xamante ni euh, loolu day tax kon law bi day n'arrêtons pas euh, euh, ñi nar a mbirum assurance maladie élèves bi ci école yi comité de gestion des écoles comité de gestion yooyu parents d'élèves yi ñu gis ci

ci Sénégal bi lañ koy def dañuy def tapage médiatique bu maga maga maga a mhm. dina durant les mois de septembre octobre aussi prévoir nañu def un tapage médiatique à tous les niveaux mhm. pour que yéne ñi ci couverture yi mhm. jox nañu ban intérêt lañ ci man am pour que adhésion bi mën a à des adhésion bi li ci ëpp solo à école ce koy vous école le bu ou à té wajur bu que euh, cotisation directeur d'école xam na ni vous mi dugg wóor na. Mhm. te dafa am solo en termes d'encadrement. une dernière question il mhm. faudrait aussi penser à à si les artistes. Mhm. pas jox leen on n'a pas besoin d'argent. na si artiste bu nekk boo ñu si page c'est très important parce que je n'ai plus artistes que un prof ou un maire directeur bu ñëw je vous parle. ils sont pas intéressés mm-hmm. na artistes yi koo leen mu woo bu jox kenn xaalis bu jox kenn cinq mille francs jox kenn dara ah, c'est notre devoir non je parle en tant que citoyen en tant que en tant que citoyen là c'est c'est un problème de c'est mm-hmm. un cadre de citoyenneté en fait c'est pas un problème de mm-hmm. xaalis man boog bu ma def campagne pour loolu je di wax dëgg soxla ma parce que man sama doom sama doom. c'est le deuxième hein. et donc en moins d'un an engagement. <laughs> donc euh, faut faudrait aussi approcher les artistes je pense que c'est important et de donner là law. Mm-hmm. et surtout nous gagner a et que nous jàpp si sans demander d'argent voilà c'est notre devoir en tant que citoyen c'est important. man j'ai une préoccupation Khady balaa ma de khat kàddu pour ñu tëj euh, billet euh, rubrique. c'est vrai ñaar téeméer bëriwul. Mm-hmm. ñaar téeméer bëriwul bo nekkee Séné boo nekkee Dakar. Mm-hmm. mais est-ce que Khalat ngène pour région d'être une discrimination positive ndaxte baykat bi boko beugé wax ñat témir mu am fukki dom wal mu am juroomi dom ñu mu wara joxé ça commence à faire une manne financière. Mm-hmm. et je pense que ñooñu ñom la ñu war a gën a ci lolu ndaxte euh, xeyna ressources financières yi euh, néw nañu néw bo xamné euh, ko wax ñat témir xeyna dina né ne wul mais ci ñom day nekk gafa goo xamné day metti ci ñoom. Mm-hmm. merci Yolande lolu Soray dañ ko pour euh, service yi rek. Mm-hmm. Euh, consultation hôpital bi aussi dañ koy jël pour faire une consultation bi kese ak garab yi ñu bind ci hôpital bi à hauteur de 50 lool moy le paquet minimum de service mhm. mais pour revenir si ce ce question bi lool soray lañ ko mhm. motax euh, atelier biñ invité nañ les collectivités locales l'association des euh, maires ñi fone invité aussi des partenaires techniques et financiers parce que aussi bien santé que éducation am ay partenaires yu appuyer sur des initiatives mhm au niveau concentrés si euh, école directement et déjà amna ay maire yu c'est euh, cadeau mhm. ba commencer ni man je peux prendre en charge à hauteur de X millions. D'accord. Mhm. Ben Binsi Am déjà, moi, le, maire de Louga, mhm. il a pris en charge vraiment euh, 10 millions des élèves. Et nous déjà fait une clé de répartition élèves qui nous ont école élémentaire surtout là nous focus pour soi lol. Donc ben bénévole pour soir mon ligue sera elle une coupe ni néo parce que 1000 francs yom bena yombul yom bena yombul donc si nous gaffons ñun ñi nga xool aussi kan lañ ko war a mën supporter loolu. loolu aussi gëstu ba nga xamante ñu ngi ko siy def. Mhm. ben je pense que loolu nekk na lu lu am solo docteur parce que c'est c'est vraiment pas évident euh, boo ko xoolee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk mais nag. Euh, suñu problème man ak moom. <laughs> di ngeen ko régler di ngeen ko régler mais je pense que dañ koy invité parce puisque at mi jotagul man euh, damay bàyyi ba at mi jot parce que je pense que des na encore tuuti. non jot na jot na nangu non des na des na des na de façon bi ni euh, wute na ak balé donte sax amna fo xamné dañuy lekkolo mais wute na te loolu mom il faut nga indi ñu wax ñu résultat yi fu mu toll balaa ñoo dugg ci Yolande donc man comme mu ngi fi tay mm-hmm. c'est l'occasion pour man. ma laaj ko ben laaj boo xamante ni moom la concerné directement. parce que euh, ci école yi légui amna ci yenn région yi. yo xamante dañuy xel di jël lu ñuy tuddee man ñooñu sax lolu garab yoyu ñi nek jigéenu wërul ñoo falo ñoo don ñoko don jël. bo nekkee jigéenu wërul euh dañ lay bindal ngay jël acide folique. ak fer. légui lan moo tax yéen ci yenn gox yi. ngeen di jox jigéen ñi élèves yi euh semaine bu jot. acide folique ak fer. waaw loolu euh, gëstu la ba nga xamante ni def nañ ko si Sénégal si àddina bi yëpp euh, ñàkk deret dafa doon lu law si àddina bi. rawatina ci euh, rawatina yolaan xam nga si dara si hmm. jigéen ñi. gëstoo au Sénégal gis nañ ni ñàkk deret si jigéen ñi ëpp na. Euh, booy doon def téeméer dem na ba 55% cinq pour cent. Hmm. dafa bëri. tout à fait dafa lool donc euh, ñun ñuni il faut ñu out ay pexé pour faire euh, animer bobu ba nga xamanteni mom hmm. lay mo am si population générale mais surtout si jigéen ñi. et leen la nga xamanteni ni nañ ko aussi si Sénégal si adina bi OMS ak yenen yi masuñu gëstu pour améliorer wergu yaramu adolescent de manière générale mhm. am nañ ay politique de santé yu si nouveau-né am nañ politique de santé si jigéen ñi mère yi ñun. Euh, c'est en général la mère et l'enfant yaay bi ak xale bi mais pas euh, ndaw bi nga xam ne l'adolescent faté nañ ko lool lool mhm. actuellement ñi ngi gëstu na leen di jëlé maintenant en compte dans les grandes politiques de santé et biñu ñu constaté que aussi que euh, ñàkk deret dafa bëri Sénégal. Mm-hmm. si si gëstu ñu def. Euh, ñu lëkkaloog euh, benn ONG canadienne ba nga xam ne bi ngi tuddoo Nutrition international mm-hmm. pour xool nan la ñuy dimbalee jigéen ñooñu pour que seen wérgu yaram gën a yokku mu gën a baax. Mm-hmm. pour que seen performance scolaire yokku. xale bu euh, anémie

Yolande euh, petite bourgeoise quand même, sama qui bu une école dama def c'est ça, bi. le soda ay biscuits. non mon fond de ndekkee. alhamdulilah la, mais mm. mais c'est la nouvelle politique. de de nutrition donc tax na ba bi day ñëw. Euh, mi ngi a bu xale bi commencé gis ay baax. Mm dafa ay mhm. perte de sang. perte de sang yi mën ñu ko compenser beneen mbir bi koy yokk mooy euh, Sénégal ñëpp am parasite. Mhm. saan te saan day yokk. Euh, anémie anémie. Mhm. donc loolu yëpp ñu ni nañ lëkkaloo ak nutrition internationale. xool lu mettre en place une nouvelle politique. pour améliorer la nutrition. mais axée maintenant sur joxe euh, fer bi acide folique bi. war ko def ci sept régions du Sénégal. bëgg a commencer Dakar Thiès Saint-Louis. ces régions yooyu boo natee moi jël soixante de la population adolescente. dee lundi di dee leen di ci Dakar di commencer ci àll bi. waaw euh, <laughs> moy yone euh, parce que bu ñu nee bi. Mhm. Euh, campagne bi def ni jël nañ vraiment périphérie au Sénégal bi jël nañ Ziguinchor mhm. Sédiou Kolda mhm. je pense que yoy aussi ñom Tambacounda ak a na na dina li solo euh, du joxe bi rek mhm. mbir mi du joxe éducation nutritionnelle dañuy def ay pour jàngal nit ñi lu ñuy ban parce que loolu war nañ ko defal élèves yi. Mhm. war nañ ko defal enseignants yi. war nañ ko defal ñi yore cantine scolaire yi. Mhm. te war nañ def promotion si ñi nga xam ne dañu bëgg a jàppale cantine scolaire yi. Mhm. pour que ñu investir euh, si lekk bu baax. lekk bu sell. lekk bu sell. au niveau c'est vrai que actuellement au niveau du Sénégal si élémentaire yi mooy classe yu ndaw yi. la cellule de lutte contre la malnutrition commencé na ko ñun ak ñoom yàgg nañ si liggéey looloo doon pàcc bi. maintenant euh, nouvelle initiative bi day ñëw mottali. xale yi ñu ngi koy jël élémentaire ba 12 euh, ans. mais bii ñu ngi koy jël 9 ans 19 ans. 19 ans lañ koy jox donc euh, xale yi nekk ci collège yi ci lycée yëpp dañ leen jox fer acide folique xeex anémie bi. préparer leen pour ñam ay matin ya nga xamante ni yaakaar nañ ni buñ ko amé sen doom dina mat té té dina taay.

Euh, mais bi mom bi mom dafa nit bi mom du matal. non non docteur docteur hmm. docteur Mor Diaw boobu moom du du du du ci ànd. mom hmm. na law rek. ba ba ba ba fépp mu laal ko perspective yu bari yo xamanteni am ngeen ko ci ci division. boobu mais mais Yolande pour te dire que boobu. initiative <laughs> euh, bi euh, non boobu dañ koy dagg dañ koy dañ koy dagg ñëwaat. non pour te dire que en fait euh défi le uh-huh. ba xam Sénégal dafa ko am. Uh-huh. ak trois pays africains. mais très uh-huh. et luñu ñu yi wax moy

Euh, civisme voilà petit <laughs> civisme alors nous avons di jàll deuxième rubrique Échappe du jour this. Alors, un super tuto, hein, euh, Khadi. Et puis, euh, ça s'adresse à des femmes comme toi. C'est tout mon mot, alors euh, mën nga jël ay pic mais voilà tout un art ay pic la c'est vrai que da nga ma bëgg a rappeler que. <laughs> rien du tout bés bu ma fi toogoon. <laughs> ma musóor moom mi moo fi ñëwoon docteur Diaw moo ma ko rappelé léegi. <laughs> mbokk ci spectateurs yi sama musóor bi di wadd rek ñu koy defar muy wadd moom te mais je pense que bii moom su ma ko defee. mais voilà avec des pics ça tient oui oui mais mu ngi noonu avec des pics ça tient en tout cas mm. rafet na trop c' est très joli. Mm. et puis. Euh, voilà on va peut-être euh, dinañ ko def benn bés. Oh! semaine prochaine. Inch'Allah. Ah mm. avec beaucoup de Bien à def Ben, andil la bu ah bon si si. bon d'accord. c'est promis. c'est devant les téléspectateurs hein <laughs> alors euh, nous mu euh, voilà je me perds dans le nom Ceki je pense que les xale du c'est euh, c'est la mode hein à Dakar. Waouh, waouh, j'ai j'ai vu que beaucoup de femmes le font. Mm. Euh, ça là? Waouh, c'est très joli quand c'est c'est c'est ça peut être tendance et très correct pour l'égayer pour euh, aussi la euh, la féminité avec un peu de pudeur je pense que c'est c'est très, très très joli et ça met en exergue en fait la la beauté de, de nos femmes bah on n'a pas mm-hmm. besoin d'être euh, euh mm-hmm. trop, sexy. pour euh, pour être une femme magnifique mais mm-hmm. voilà je pense hein tout à fait hein tout à fait comme le c'est c'est toujours bien new york ay tout yu mel pour que vraiment femmes ici également d'ici d'ici pour que nous menons a benen façon aussi hein. C'est de la ah femme effectivement docteur et puis euh, a pour se faire plaisir et se faire belle tout à fait donc c'est une belle chose je mhm. pense que li Khadija de la démonstration à eh, l'émission prochaine ici. <laughs> non non boobu moom man nii maa ko koy <laughs> parce que may ragal mu jël heure émission bi yëpp. <laughs> mais mais man Yolande man. pique pique yi laay man si ak ak famille comment comment vous faites. non euh, ça ça ne ça ne nous pique pas. c'est vrai que bon man pour li may def bon pour yi may def man du ko soxla personnellement parce que je préfère que ma bàyyi ko noonu. mais je sais euh, experte non, mais euh, à force d'essayer, mm-hmm. d'essayer, on finit par pouvoir le faire. Mais en tout cas, xamna ne dinañ ko def ba nga xamné du suñu xam nga bu la non la nous du la ah. <laughs> doto mu la. de façon du jam et puis euh, tuto bi. Mm-hmm. dafa am ben ben kagul bu nek ci voilà alors ce sont de fines euh, épingles. C'est hmm. euh, na. ba la parce que de ko trop aussi c'est vrai jam sa mais bu la bien ne ça c'est clair <laughs> en tout cas pour nga hmm. c'est très pratique. bien et puis booy commencer. C'est vrai am na ñoo xamne man dama leen di gis ñukay def mais duñ def je vois souvent Kodou on la salue au passage Kodou Mohamed euh, di ko ñaanal nak mu gaaw a ndax te nam nañ ko. Hmm. bu

j'espère que Checky Blaze voilà j'ai un problème avec les rapports du ma dis chaque fois tour bon Checky Blaze hein? voilà alors Checky Blaze moi qui invité artiste hein? mais Nous nous ñu dem euh, plateau Corché de moi Double attentat meurtrier au Nigeria. Nous venons de vivre les attentats les plus meurtriers que la France ait jamais connus. En Libye, l'attaque de l'hôtel Corinthia de Tripoli, attentat revendiqué par une branche du groupe État islamique. Palestinien a été tué aujourd'hui. Suicide d'une jeune femme en direct sur le yeah. périscope que c'est il ok ñu mën reportage animalier moo ëpp ay sentiment journal terrestre daan ko rek mooy découragé na crise catastrophe mort bombardement ku la gën a bañ sa morom may ëpp encouragement àddina jaxasoo ba xalaatuma suba ndax bés bu ne ñi gën a suux si musiba kelle nit di tukkeel àddina may sama kumba arme nucléaire guerre planétaire ba suñ dugg ni rubba dem nañ ba góor tekkeeku taxawaayu góoram jigéen nekkatu royukaay ci biir këram àddina bu ñu nekk moo feebar ba ci biir këram doon përëm utum dërëm ni dëkkee xërëm nasaraan yàq adina ndax intérêt suñu rakk yàqu ndax télévision internet relation amatul lépp jare si internet snapchat periscope génération bet point net mujjum jamono tax day gëna a bëri bàyyetul mag ak ndob lire ba si kër yi nit yàq adina suuf géej ba si fleur indi catastrophe guerre misère ba ci feebar papa munazaf la mbirum pauvreté waaye utum richesse influence ak ñaata ñooy dund xiif mar kaawatee nasaraan jël suñu matière première bàyyi fa kaawatee Afrika ñu jëm ba léegi yeewuñu élection du ñu am jàmm waaye ni deewuñu njëg du wàcce fekk yàqul dëkkam wala geeruñu doon pion nasaraan di ko manipuler ba pare geeduñu bañ a jëf toog ji xaar duñu gëm loo yàlla baax na mentalité dof yooyu suñu réewi tax na porte laisser aller insévir ni fang sax na léegi perversion violence bi dëkk na suñu éducation culture moom la ñu suul mu suur ku deful yëfu nasaraan doon nga ngi pruur jigéen du surtout wanewu di naan di tuur li jig nasaraan jiguñu moo tax suñu réew yi dëkk di suur africain bëggul gis moromam teg ay jéego dellu ginnaaw ak euh, Cheikh Blaise euh, mm-hmm. vraiment un texte très engagé. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que nak euh, bo beugé dégg dëgg man dama len di faral di déglu mais ce sont des textes vraiment très engagés d'elle boo bëggee dégg dëgg dee leen di déglu. Euh, malheureusement nous ne nous bàyyi pas ci seen i ay parce que il faut aussi prêter l'oreille euh, quand on n'est pas de leur génération. prêter mm-hmm. l'oreille pour xam li wax. Mm-hmm. mais euh, les gens ont encore besoin surtout la jeunesse parce que ce sont des gens très écoutés euh, ont besoin de ce genre de de de de de discours. Mm-hmm. pour vraiment revenir euh, ci li nga xam ne moom la fi surtout ci suñu biir tout à fait euh, Yolande euh, wax nga lu am solo baax na artistes yi ñu leen di déglu rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngu ci sphère hip hop. gis naa ay waajur yoo xam ne sax dañuy dañuy dañuy rap

Ah, je suis mm. impressionnée. Mm. Franchement, toutes ah, mes félicitations. Merci, parce que ça fait longtemps ma gëj a dégg yu mel nii. Mhm. Euh, rappeurs yu engagé nii. daf ñu commencé y a manqué. parce que bu may déglu man dara ji. ci koy non sax mais nga def. Mhm. traduction peut-être parce que par contre voilà le sous-titrage ci biir. effectivement émission tout à fait incivisme mhm. ah? nga wax walu jigen ñi. Mhm. perte des mœurs. Mhm. li nga yi mu tënk yëpp am solo. Mhm. man fi ma nek ni je suis séduite. alhamdulilah super waaw mais c'est moi <laughs> donc kon il faut nga yok déglu ñeneen ñi kon. comme ça waaw waaw parce que am na fi quand même hein. moi je les écoute et puis nga déglu Dakar FM aussi tamit ci loolu hein, parce que <laughs> Dakar FM. non bay ko boobu <laughs> moo tax du dégg du xam ñi kër ya. voilà donc. Euh, dal euh, doon na la 10h. Hein. donc Yolande euh, mu ngi noonu donc Cekki Blaise mm. donc ñu am mbégte vraiment dalal ko ci plateau bi. euh euh, fraîchement débarqué euh, Sénégal pour présenter n'est-ce pas extended play bi euh, Dina bàyyi nga wax yolaan la mooy extended play <laughs> donc xam nga lu e extended play ah baax na du man kese la extended play l'abréviation c'est c'est EP e maintenant Baye, mu mu mu mu mu mu mu def la présentation waaw di nuyuwaat encore ñëpp di leen remercier encore pour l'invitation. bi mm. donc euh, je pense que retour yi ma am ça me fait beaucoup plaisir en tant qu'artiste man man loolu laa soxla mm. donc euh, après moi, c'est une force ñun xam nañ ñun seen génération yéen xamone nañ suñu génération ñun dañu xam suñu génération xam seen génération mm. diko teunk ci musique mm. donc ñun moy suñu doole ah. donc parfois dañuy gis ben jeune ñi sol casquette nga on ne croit jeune bête mais je pense que lu ñu am ci culture c'est vrai c'est mm-hmm. euh, c'est énorme tout à fait donc euh, le reconnais motax motax mo la don sang fa nga boole boole si yi parce que mm-hmm. euh, am na ñi nga xam comme ñu ko wax c'est vrai que bëriwul mm-hmm. on reste engagé par rapport à suñu suñu population donc pour Standing Play c'est un EP qui veut dire c'est un mini-album. Ah, ah. mm. mm. Donc, mm. entre un album, un artiste est gagner parfois un EP mm-hmm. pour faire la promotion. Moi, single ay wa ouais, single libéré, parfois les bolé. Pour montrer qu'on travaille, que Amna Len lui ñew Parce qu'un album est beaucoup plus compliqué. donc Mon may wax ci niveau bob. Parce qu'un album, c'est beaucoup plus compliqué. Tout à fait. Amna conception, des am ligne directive, mm-hmm. des am morceau 1, bolon 114, forme am ben corrélation. Un EP là, on a fait des mélanger, donc on sentit, et puis tu balance pour ne yaa mm-hmm. donc euh, voilà je remercie encore donc ce titre là de ginnaaw. Mm-hmm. c'est euh, c'est juste un ressenti par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde. Mm-hmm. et au Sénégal si ñun lu comme nous le ko waxee Paris je pense que nous on a même. est ce qu'on a plus d'informations que nous de parce qu'on a peur pour suñu une population pour suñu famille donc on lit les informations on décortique xam la mauvaise ce qui marche pas pourquoi les gens des feebar lu tax accident et bruit on a peur. Mhm. donc en tant qu'artiste après ça prend une proportion mais voilà avec la presse waouh oui oui oui c'est vrai c'est vrai mais tamit euh, ñu ñëwee fii on sent mhm. aussi que y a y a beaucoup de problèmes aussi Jam am fi fille mhm. mais aussi y' a y' a y' a un problème d'incivisme il y' a y' a beaucoup de de mots yi nga xam ni. foog nous defar ko pour suñu dëkk bi. mën a avancer tu vois donc c'est un cri du cœur morceau bi. Mhm. Euh, pour notre génération pour que ni ni mën parce qu'on va on court vraiment à la catastrophe. Mhm. Euh, par rapport à les par rapport à mentalité yi incivisme yi bu ñu am ci tubaab bi. on prend tous les mauvais côtés. exemple mauvais exemple beaucoup ko indi fii. ba pare sax ko

mais euh, gëm suñu tout jitu à bi. donc euh, voilà nous en tant qu'artiste je pense qu'un artiste doit être engagé par rapport à par rapport à sa communauté. Mhm. par rapport au monde. donc moi je je reste aussi un artiste euh, bu gum Sénégal. Mhm. bu Afrique et du défendre à travers le monde donc en France aussi all of way la 90% de mes morceaux j'ai un public blanc avec nga xam c'est pourquoi il y a <laughs> mais ils ressentent engagement beaucoup mhm. ils me demandent mon traduire donc c'est important que ait un message beaucoup donc voilà donc docteur docteur après euh, je pense que non non en fait euh, je suis très séduit. Mhm. déjà par le comportement. tout à fait parce que un rappeur.

c'est acceptable. elle est souvent trompeuse. Et oui, oui, c'est ça. Mais, mais l'être humain est jugé par l'apparence d'abord. On, est, on a été formaté par rapport à cela. Mhm. Mm. Mais il est important donc de soigner cela. Et surtout, c'est important, nous voir l'unité li mu wax yëpp ko la fois passée li ñu waxoon yëpp dégg ma j'avais dit <laughs> j'avais dit que nañ rappeurs di wax un langage intelligible pour qu'on puisse comprendre le message mm-hmm. parce que c'est des messages choc mm-hmm. des messages phares il mm-hmm. nga xam ne ñun daf ñuy yee tax ñu aussi une politique à l'éducation on a besoin d'écouter vos messages culture bi ngay wax solo il faut qu'on essaie de nous lier culture éducation il faut que fondements fondement de culture de son aada bi ñu ngi bëgg a di

mais nee na Sénégal la pour liggéeyal pour jàppale euh, pour lekk bi gën baax c'est fondamental tout à fait euh, euh, sport bi ñuy def ñi ngi def sport si lu tubaab bi mais euh, nañu xalaat que sport bi ñu bëgg def ñun aussi mën nañu utiliser ay kañ euh, si njoon sànnite bi nekkee xale mm-hmm. wala di njool daaj ñu ko mm-hmm. tuddee njool daaj wala di tubamante di daw mm-hmm. sën mouton yooyu suñu aada la et eh, dina motiver xale ñu sport et dinañ foo donc euh, modèle yooyu en fait euh, mooy aada ba nga xam ne dañ ko war a booleeg ak politique yëpp santé bi éducation donc je moi je te félicite mm. si sous-titrage je te ah. félicite langage euh, mm. et vraiment de encourager aussi au niveau de l'éducation c'est ça avec plaisir mm. wax sa soxla <laughs> intérêt rek lay wut si africain bah, je pense que c'est clair La euh, euh, euh, société Touba je je veux pas en nommer. Mhm. une ex Sénégal qui gagne des milliards ici au Sénégal a c'est pas le sénégalais qui en bénéficie. Mhm. il y a une infime partie de ci Euh, société yi dañuy jël ay euh, y' a on m'a on m'a dit un exemple un ami qui était dans une société nous taxaw dit la dernière fois il y a quelques semaines euh, il travaille à ay minerais affaire Il m'a expliqué que au Burkina Faso ils ont société la société de ñu ils prennent euh, le marché mais ils le donnent aux aux locaux mhm. burkinabé ñoom ñooy def sous-traitance bi mais tu vois société européenne bi ils fii indi sous-traitants Ils jël suñu xaalis suñu milliards yóbbu l'afrique l'Afrique mm-hmm. en Europe y' a plus rien. y' a plus rien une matière première. à terre amuñu dara avenir bi c'est l'afrique et nous, si vous même faut que day metti nous diminuer les liens. Mm-hmm. même bu que day metti même bu fekkee dañuy si ay subventions même bu que ñu mm-hmm. d'accord il y a la banne. il y a les l'oignon ici il y a quand nous on est en Europe on revient ici. nga bëgg a jënd diwlin te ñu am gerte de dëkk qui coûte plus cher qu'en France. tu dis mais c'est quoi le problème. il est où le problème. Euh, comme beaucoup de matières premières si mm-hmm. on l'a ici dans nos terres mais c'est plus cher au Sénégal qu'en France. Mm-hmm. c'est-à-dire que si les maintenant pour dépenser 50 000 francs c'est rien. Mm-hmm. en France pour qu'elle gagne le 100 euros qu'est-ce que en plus faut que même daa bëri xaalis en problème Mais dox ma mais égal. ici on le dépense en quelques mais pourquoi donc politiciens je pense euh, gouvernement on est légal à ce lot et qu'on arrête les importations mhm. on a les euh, la potentialité mhm. nañu pas importation parce que importation déjà de 1, mhm. on nous envoie que des conneries ni des il Il y a une feebar il y a des problèmes d'hypertension combien de jeunes ont des dégrés Des am baisse de tension des AVC des c'est parce que c'est la nutrition tout ça là yéen tamit foog ngeen tu vois qu'on arrête les importations qu'on consomme local Et qu'on

pratiquement li nga xam ne moo tax nga ñëw Dakar tax nga ñeu Sénégal mooy un événement bi nga un grand événement bi nga pratiquement préparé euh, di ci invité ay artistes yu je mhm. peux citer euh, quelques-uns comme Ombre Zayan Mao Sidibé Roman, Books alors wax ñu un peu le pourquoi de cet événement là mhm. est-ce que c'est pour que nous ñi gën la xam pour euh, vraiment élargir ce public. rapidement oui effectivement en fait comme moi je suis un artiste qui est bon ma commencé ma carrière solo j'étais basé en France donc mhm. ñu bëri la dégg sama tour mais ñu ma gis. Mm-hmm. et nous brûlons tamit xamuñu euh, kan lu may def et liguey bu may def en France par rapport au rap Kalsen donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ici pour présenter me présenter en tant qu'artiste et euh, faire connaître le public de mon tour euh, Inch'Allah Sorano donc on sera là-bas le, 22 avril donc euh, avec des invités qui viennent de Paris de Sénégal donc pour un concert exceptionnel mais je pense que ce sera ça de, de un vrai concert facture. exactement avec <laughs> docteur Mouno comme ça tu vas tu vas voir une facette des, rappeurs qui sont mm. des gens corrects et avec un message très très engagé et surtout intellectuel également parce parce qu'il faut rappeler que les rappeurs, surtout une next génération, c'est des gens c'est des universitaires. Tout à fait. Hein, ils ont des masters plus Donc euh, rappeurs mais aussi c'est aux rappeurs, c'est aux artistes de de dégager ces ces appréhensions. Moi je suis ingénieur informatique. Ah. Donc euh, je travaille pour une grosse société là-bas donc euh, et beaucoup de collègues qui xam mieux ñoom ñëpp loolu Donc voilà voilà c'est important que nous ñi xam ko qu'on qu'on veut travailler pour le Sénégal. Yeah. que on est très très engagé pour ce pays là bëgg nañ ko ba mu mm-hmm. donc euh, voilà. Ouais, mais en tout cas on lui souhaite plein succès. waaw hein, del c'est vrai que nous nañ ay mais li docteur Modou aussi euh, wax nek am solo. Mm-hmm. Euh, nañ aussi ci parce que malheureusement Sénégal nous ñu et mais voilà ça mm-hmm. ça compte beaucoup. vu sur la toile dañ koy dem ba de toutes les façons waxtan bee neexoon ba ñu di xaba touti encore une fois euh, émission euh, merci en tout cas plein succès. Euh, le 22 avril. à Sorano Checky Blaze avec tous mes invités toute la population sénégalaise. voilà docteur Mor. non plaisir projet magnifique pour <laughs> la santé scolaire te gis mhm. et vraiment à vendredi merci Yolande à vendredi Inch'Allah. allah xanaa rek di remercier invités. fi teewoon particulièrement à Maria Mamagasova, mm 634 44 11. merci Yolande, merci également à Tcheki. Je vous rappelle que euh, Flyers Mais Donc pour euh, ñi nga pratiquement euh, visiter Tcheki Blaze en live pour ce pour ce samedi 22. Info line 77 620 91 65. Merci à tout le monde. Alors, merci à vous aussi dit, euh, souhaiter aussi à toute la communauté chrétienne de bonnes fêtes euh, Taille le vendredi saint euh, soube samedi dimanche fête de Pâques euh, a que ñu leen di souhaiter d'excellentes fêtes di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax ci seen teewaay émission tam-tam bu suba bi dingenti di yaham ci ànd yaxam ma di dig dadi, semaine prochaine bu soobee ci di may fii ci Guédiawaye ci quartier Darou Salam 1 ci wetu marché jeudi ñu ngi fas yéene yeesal toolu maam Tend Mboup moom mi jiite benn kuréel bu ñu tuddee GIE ngéwél gi. ñun dañuy santaat yàlla bu baax ndax ñëwoon ngeen fi bi ngeen fi ñëwee léegi mat na une semaine boobu temps nag ñoo ngi nekk ci daaj ak di defar tey nag ñoo ngi commencé nañu ji nañu tey dana kontaan it xol sedd gi ci seen ñëw bi ngeen fi ñëw. tuway mom euh, ay tuyaux PVC la. 110 léegi euh, benn bu nek lay def 6 mètres longueur léegi dañ koy dag en trois parties distance su trou bu nek mi ngi def 22 euh, cm dès le berceau la femme est la responsable de l'alimentation par son sein mais après le sevrage l'enfant fait face aux aliments qui manquent énormément d'oligo-éléments le micro-jardin bio. bien complète. Rendez-vous le 6 mai au Zénith de Paris pour vivre un spectacle exceptionnel avec le porte-étendard de la culture Alpoulard. Baba Mal au Zénith de Paris ce 6 mai. Un spectacle exceptionnel et la RTS sera évidemment au rendez-vous. Il y aura des plateaux avant, mais également pendant. Des coulisses, des interviews, des émissions, des plateaux, des spéciales pour vous permettre d'être au cœur de cet événement. Baba Mal au Zénith de Paris. Ce sera ce 6 mai, soyez au rendez-vous, car la télévision nationale, c'est aussi la chaîne des grands rendez-vous culturels. dans votre émission Carrefour des Arts. Une toute nouvelle émission qui a été créée spécialement pour vous. Sur nos différents plateaux, parce qu'il y en a plusieurs, nous avons des artistes qui nous accompagnent. Dans la galerie Léopold Sédar Senghor, nous allons parler de littérature, nous parlerons de stylisme, nous parlerons également de performance, d'art visuel. J'ai un invité avec moi qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Euh, Monsieur Ndiaye, qui est résident de ce village des arts. Et on parlera également d'actualité culturelle. Justement, 2017, qui a été décrété par le président M. Macky Sall, année culturelle. bonjour et bienvenue dans votre émission Sénéécole, le miroir de l'école sénégalaise. Une émission qui a pour vocation de rendre notre système éducatif beaucoup plus performant. L'enseignement, c'est une affaire de don de soi. L'enseignement, c'est